tojate li fi nek lepp il y avait plus de plus de plus de plus de 2000 personnes yo xamné ni tey jii fii dañ fi doon dund. deng nga Diop euh, fi ñew and ak Descote def fi li nga xamné ne moom ngeen fii gis ni tey jii nag ñu woté won conférence de presse ginnaw bi président waxé lim mu wax. ñëwoon fi ci centre professionnel bu jamnaajo bi bi mu koy inaugurer xamal né né population jamnaajo kat nañ leen bayyi ak seen suuf dégg nga kon nak ñi nga xamné ni ñom euh, dañuy dañuy dañu ay expo ñi nga xam dañuy spolier souf ci nañu bàyyeeg population bi seen souf suuf. loolu nag bi mu amee ba léegi euh, chef de l'État en personne collectif bi bind nañ ko à travers son directeur de cabinet mu tontu ñu deux fois mu xamal ñu né le dossier là. Euh, instruction yi nga xamné ni mom la ci président de mu ngi koy suivre au niveau de la primature lolo tamit bagn togué ba boobu ñu ba légui courrier venant de la primature bindaat nañ ko ba yalla def na fu mu nekk élection yi dadi jot bi élection yi joté aussi may nañu président mu campagne bi mu jeex tak ci campagne bi bi mu jeexee nag ci lañu reprendre maintenant pour ñu euh, euh, euh askanu Sénégal ñu déggat ñu ñu xamal leen nak fi nga xamné ni Euh, moom la ñu taxaw bâtiment yi ngeen di gis nii ñu teg ko nii mooy li nga xam ne nii moom la fi Diop Sy def loola nag seeni borom ba tey dañoo génn tey dugg ci biir population bi fa la ñuy fanaan fa la ñuy yendu fa la ñuy suturloo fu mu nekk nii ak seeni euh, euh, njaboot ñu bëgg nag président mu taxaw ci loolu ba ñi nga xam ne nii kat ñoom ñoo fi dëkkoon ñu ñëwaat dellusiwaat jëlaat seen kër toogaat seen kër ak seeni biir biir njaboot

te li mu bayiko ak population mu bayiko ak population bi. benen bi ci des mu ngi ni injustice bo xam ne dafay bu 14 hectares yi. mo nek ni sama ginaaw lolu aussi. lotissement la bo xam ni maire bi daf ko defone pour population mm-hmm. il s'est trouvé que tourne ci 471 parcelles de nga impôt et domaine dal di koy jël. partagé ko ak ben famille bu nek barñi population Diamniadio amul dara lo xam ni, am nañ ko de nga feneen fi ngay gis ne la muy les bananiers fofu tamit la euh, population wu Diamniadio dañ fi defoon ay armeel musulman ak ay armeel yoo xam pour les chrétiens defoon fi aussi terrain de sport loolu aussi dégg nga ay promoteur ñoom ñoo ñëw foofu ñoom tamit taxaw génn ay kayit ne ñoom foofu ñoom ñoo ko moom ñun nag waa Diamniadio duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg ñuy ñaan président na taxaw pour que 376 hectares yi nga xam ne nii moom moom moo fi nekk na ko jël mu delloowaat ko population bi ñi nga xam ne ni ñoo fi nekkoon

mu delloowaat leen seen i suuf ñu delloowaat leen seen i kër pour seen njaboot mun fee ñëw di fi suturloo donc lii mooy li nga xam ne nii déclaration bi nga xam ne moom laay def fii mais du tee tey jii booy xool par rapport au port urbain tey jii bu Diamniadio 1644 boo xam ne pôle bi jël na ko fekk na fa lotissement administratif ñooñu tamit ñoo nga toog parce que amoon nañu administration amuñu fenn fu ñu on parle aussi cas de Sibi Ponti y' a le poids de Dougar il y' a le cas aussi de Nduxura qui a un lotissement lotissement 25 hectares qui a un mu ngi 84 60 R Nous avons un village moo fa toogoon nit ñëw taxaw ne moom moo ko village bi dafay jóg loolu lépp. nekk na loo xam ne nii dafa am jam ñaajo ñuy ñaan le président de la république à travers le gouvernement à travers les services administratifs dégg direction yi ñu fexé ba nga xamné ni population Diamniadio ñu mëna rentrer dans leur droit jërëjëf wasalaam. Euh, euh, euh, lolu nous sommes en contact avec avec mairie bi avec le maire avec ses services techniques dégg nous sommes en contact avec encore avec le sous-préfet le sous-préfet de de de de de Mbambilor donc kooku tamit recevoir nañu yagul dégg il a reçu les chefs de village il a reçu les collectifs, il a reçu aussi certains promoteurs immobiliers pour nous voir maintenant comment régler les problèmes table mais aussi des solutions. mais solution mais dans solution le chef de l'État instruction mettre en acte pour que population message mon euh, euh, suñu interlocuteur c'était le premier ministre mom lañu bayé à travers son directeur de cabinet il y a eu un changement de gouvernement euh, l'ancien premier ministre Teddy est nommé ministre d'État secrétaire général à la présidence de la République Donc, mon mon président amna na slogan bumu mu ne fast track fast track bobu muy def noonu maanaam ñun liñ dégg jàngat biñ ci am na ñu xamal ko